asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man la Racky Sy responsable APR présidente réseau euh, de groupement liggéey jariñ sa réew. waaw euh, li waral jotaay bi jotaay bi man sàkkuwuma ko mais dafa fekk ma jiite ay jigéen ay réseau de femmes des femmes yoo xamante ne presque ñu ngi ci au nombre de six cent six cent ba mille femmes ñu nekk fu nekk fu nekk ci Thiès dama gëllale naa sax Thiès donc ñoom ñoo sàkk loolu parce que nag comme li olof di wax sa lenn yaa ko moom mais sa lenn nag boo bootee ay nit ñoom ñoo koy moom boobu ba tey damaa toog jàpp sama njàmbur nekk yëngatuuma ci dara jàpp ñu ne ma déedéet parce que da ngay jug dangay wax parce que mënuñoo toog nga ànd ak bi keroog bi président Macky sàll génnee PDS nga génn ànd ak la président Macky Sall ñu toog jamono dox nga sonn ci lu ne nga def ko ci Thiès leader yi jug ànd ak nga ànd ak ñoom liggéey Thiès liggéey fi lu rëy rëy rëy nga toog tey ba heure bii ñu toog ba tey jii ñu ne président ngay woote pale ñuy woote gisuñu ci sa tur ñun nag dañ lay wax ne da ngay wax kon samay réseau de groupement de femmes ñoo ma wax loo parce que nee nañ ma comme def nañ ko ci élection locale yi ñuy ñuy ñuy joxe ñuy dugal ci liste yi ne ma kat ci département euh, bu ci département bi lañ lay dugal ñu dem ba ci yàgg sunu tur gisuñu ko ci liste bi jigéen ñi mer bi ñu meree aussi dañoo dem a dem ba nga xamante ne nii euh, am na ci ñoo xam ne sax dañoo ne duñu voté ji ma nangul leen ko parce que nag bu fekkee da ngaa jiite ay femmes di liggéey ci développement di famille di liggéey di ñëw di verser ñuy denc di épargne di dajale ba presque plus de quarante millions yoo xamante ne ni dërëmu benn responsable nekku ci kon ñooñu suñ la nee waxal da ngaa war a wax parce que nag yow yaay man maay njiit bi loolu moo waral tey jii sama wax jii waaye ku nekk toog euh, nekk responsable APR xam nga ne damaa toogoon jàpp sama njàmbur depuis ci élection locale yi bañ ko doxalee nañ ko doxalee damaa toog jàpp sama njàmbur waaye ñu wëlbatikuwaat ñuy woote pale ñuy woo nit ñi tëb la loolu jekkul jaaduwul suñu responsable yii li ñuy doxalee dara rafetu ci parce que nag président Macky Sall santaanewul loolu ñun nag bëgg Macky Sall moo ñu bàyyi woon si moo ñu bàyyi si parti bi waaye ba ñu demee ba xamatuñu gisuñu dara lu dañoo toog jàpp suñu njàmbur ndaxte nag ñu ngi fiy liggéey loo xamante ne nag mën na ñoo yëkkati suñu loxo nag ne ah bu ñu nee benn ñu ne ñaar de te loolu ñëpp xam nañ ko jigéen ñi nga boot plus de 1000 femmes boole ko di walbatik somme yu toll noonu yoo xamante ne kenn joxu la ko ji daaw ñi ngi woon ci quarante million dégg nga ren jii macha allah macha allah dinañ ko romb donc mu nekk loo xamante ne jigéen ñi ñoo koy liggéey di wëlbatiku bari na jigéen ñoo xamante ne nii Omar damay wax sama àqulaay taala bari na jigéen ñoo xam ne tabax nañu kër ndax suñuy financement ak suñuy wëlbati bari na ñoo xamante ne ñii tey karole nañu ñii tey jënd nañu seeni chambre à coucher te loolu yépp ci développement moo tax ñu def ko kon loolu suñu toogee ñuy lim ñi ñuy yóbbu pale tëb ñu du neex jigéen ñi looloo waral tey suñu kàddu ay euh, euh, gisuñu benn financement li gën a doy waar rek mooy DER bi DER baa ngi nii bañ ko yëkkatee ñu ne DER bi DER bi c'est ñun jigéen ñi gisuñu sunu bopp la jigéen ñi di liggéey bopp ba tey seen xaalis ay jaaykatu ay restauratrice a ngi ci ay tailleur a ngi ci ay jaaykatu jën a ngi ci ay jaaykatu géejee ngi ci ay ay ay ñoo xamante ne ay commerçante ñu ngi ci ñooy wëlbatiku di liggéey seen xaalis ñuy dem parce que développement ñun loolu la xam dañ koo miin ñuy wëlbatiku di dajale bu ñu demee ba nga xamante ne yenn per di ci jàppale seeni i borom kër ñi nga xamante ne nii mu nekk loo xamante ne nii yàlla suturaal ñu ci donc ku jiite jigéen ñu lu toll noonu ci jigéen defe naa ne bu ñu demee bay wax ne président warte te nga àndoon ak président démb ak bërki démb war war nañ laa mën a gestu war nañ laa boole ca ñuy convoqué bañ ko defulee nag moo samay jigéen mer keroog ba ci élection locale yi bi ñuy voté ji dafa am jigéen ñoo xam dañoo ñëw fii ne ma duñu voté ma ne ko déedéet ñu ne man duñu voté parce que comme gisuñu sa tur ci liste bi duñu voté te Omar ku nekk xam ne ne réew mi koo ëmbal koo ëmbal koo ëmbal sankal sankal mu ëmbal la sa sutura yow ki nga xamante ne bu jaaxle day ñëw si yow ci développement nga yëkkati ay millions jox ko mu liggéey kooku bu la gisul ci liste du voté loolu kenn kenn kenn du ko wéra kenn du ko naatable su la gisul ci list du ko voté moo tax ñu ñàkk suñu fii Gabrielle Ndione bii maa ko moom

war a mën a bu ñu jugee mbooloo jug ci seen ci seen topp leen ñoo ñu jox ñu leen seen gëdd boolewuñu ci boolewuñu ci audience boolewu ci dara moo tax ñu toog jàppoon suñu njàmbur man dama ne woon damay génn APR femme ñi ne ma xaw ma de loo ci mën a doon di nga wax parce que lii ñun tamit duñ ko dégg parce que xam nga li ñuy liggéey fii ci caali liggéey liggéey ci caali romb caali ak Cees ak lu génn Cees ñun xam nañ ko. Euh,

vraiment vraiment mais déggaguñu ñun ñu wooñu eh, ñu jëm waaw APR bu ñu ci joxul suñu cër ak suñu gëdd dañu leen fii neen ñukk nag génn nag dem xooli leneen parce nag. am na loo xamante ne nii munoo di munoo di munoo di bay gola di bay baabu di dundee parce que munoo nekk fii depuis sonn ci sonn ci nu ne lu ñuy def di lu ñuy def teggi la kon kon tey ji lu ne mën na am ba ci législative yi buñ ko defee nii gars yi dañuy votaat vote sanction rek parce que nag nit ñi tamit am nañ xam nañ ñi leen mën a jiite xam nañ ñi leen mën a jàppale xam nañ kii et kii gis nga cees gii xam nañ kii et kii xanaa kay xam nga lu fi nekk def la neex moo fi nekk xam nañ kenn ku nekk li nga mën ak li ngay peser kon daal loolu moo ko waral parce que nag di nga gis nit daal di koy daal di koy xool nga xam ne kii kat nga woo ña ngay woo fekk yow kooku benn nit sax mënuñu koo voté nga gis ku mel ne rakk si bu jugee di voté jigéen ñu bari dar ko ànd ak moom wala boog ñu dem ñëw bu ñu ñëwee daal di ne kan la ñuy voté loolu dafa am loo xamante ne nii parce que développement bi ñuy yëngatu nit ñi dañ jigéen ñi dañ la ciy bàyyi xel parce que jigéen ñi dañoo toog ñii dañoo ragal banque ñii bu ñu demee ci banque caution yi ñu leen laaj amuñu ko kon suñu toogee ñëw ci réseau yu mel nii di ñëw bu ñu ñëwee di wëlbati di leb di fay kooku defe naa ne boo ko nee lii doo xaar sax mu moom moo lay naan man à chaque fois les femmes ñooy ñëw fii nañu dañoo bëgg nga wax ñu kan lañuy ñuy voteel bien sûr message bi mooy ñu xool ñi fi nekkoon démb ak bërki démb parce que nag ñun ba ñuy nekk APR ku nekk xam ne keroog ba président génnee génne euh, le président Macky Sall keroog ba mu génnee PDS keroog la ñu génn ànd ak moom xamuñu ci lan la ñuy dal xamuñu ci lan la ñuy ami mais dañoo ànd ak suñu ngor rek daal di génn ànd ak moom jàppale ko jàppale ko jàppale ko jàppale ko ba fi mu toll nii kon nag dafa jot jot na nag il est temps ñu gestuñu wala bokk ñu xool nan la ñuy defee sunuy sunu sunuy mbir. boobu euh, ba tey mosuñoo am ndomba tànk ci nguuru Macky sàll te guddi nañ ci bëccëg nañ ci sonn nañ ci def nañ ci lu nekk. dell fees nañu dell vraiment.